Assalamualaikum Bok Senegal, mangi ngi wax ak yéen tey jii fii ci palais la république ndaje bu ama am solo buma ma am lu toll ci presque juróomi waxtu ak lu topp ma am ko ak ñi nga xam ne ñooy kàngam yi ngànk wàllu wér yaram ko docteur jëm ci mbas mi ñu doon xoolaat tolluwaay yi ak fi réew mi toll tey ci feebar bi ginnaaw bu ma santé ñoom waa kër docteur jiital ci ministre bi nga xam ne moo yor wàllu paj mi ministre de la santé de l'action sociale moom ak collaborateur am yëpp ci taxawaay bi ñu am fukki weer ak léegi ñu ngi taxaw guddi ak bëccëg ngir di taxawu askan wi ñu war leen sant bu baax si taxawaay boobu ñu demoon nag xeex mbas mi ba daanaka mu meloon ni luy jeex ci weer yu yële ñu génn bi ñu ñëw bi mois de novembre ñaari weer si ginnaaw mbir mi jógaat jógaat na nag jóg bu jéggi dayoo xam ne buñ si gaawul taxaw dana indi ay musiba am na luñ si tàmbali gis si ni feebar bi lawee ak ni nga xamantene non le cas grave am ci service sanitaire ak nit ñi ci ñak seen bakkan ni mo mel lool nak nek na lo xamne boko gisee te taxawoo si taxaway bi war dinañ dem bu mu dépassé ñu te musiba bobu muy andi ñaanu yalla mu ñew sénégal ndax xejul ci ñun loolu waral tay ji waxtaan bi am solo ma déglu bu baax baax yi ci lépp li nga xam ne war nañ ko taxawaat taxawaay bu bees ndax demoon nañu ba am ay résultat ñu bàyyi ndeku ñëpp jàpp na feebar bi jeex na kenn takkatul masque xew yi suba ngoon ñu ngi xew si biir kër yi ak ci biti ba tax na euh, gis nañu tey ji fii mbir mi toll nit ñi faatu bari nañu ñu nga xam ne feebar nañu gis nañ ne ñu ci bare bare bare kaayu yu grave yi daf ci bëri lool ba Sowétas daanaka fépp dafa fees ñu bari soxla nu ñu leen di jàppale pour ñu mën a noyyi loolu nag li ci tegu mooy ay faatu yu bari te ginnaaw yàlla def na ba tey jii ah, naam ñu ngi laamisoo wàllu ñàkk bi nga xam ne buñ ko defee xëy na mun na indi ab tan waaye fii ñàkk boobu di ñëw faw ñu continuer di taxaw taxawaay ñu waroon taxaw mooy lan mooy di moytu dajeloo ak sëmbaxloo moytu bañ a joxe loxo yi ndax feebar bi ci loxo yi lay jaar di takk masque yi ñu wax te di dàndandoo loolu rek mooy li nga xam ne moo ñu si mën a génne ginnaaw xam nañ ko nag ma ciy gërëm kilifa diine yi nga xam ne yëkkati nañ ci seen i kàddu bàyyiwuñu si di joxe ndigal koku gis nañ ko si Sénégal ma leen ci sant bu baax a baax ñen nañu boobu ba léegi daje yu bari defuñu ko ndax dañ koy def ngir jàmm askan bi ak wérgu yaramu askan bi ma leen di sant bu baax ci loolu ñi si desit joxe ay ndigal ngir nit ñi bàyyi seen xel suñuy feebar bi mu ngi fi di law ba tey li nag moo tax ginnaaw bi ma dégloo docteur yi ak euh, ñu wax ma li xew dëgg-dëgg ci hôpitaux yi ak ñoom seen ragal bu ñu ragal ne bu ñu taxaw li war ci weeru janvier bii déjà lu raw li ñu génn décembre danañ ko gis te loolu kanam la jëm buñ ci taxawul taxawaay wa loolu tax ma ne dinaa wax ak yéen askan bi yépp xamal leen ni waxtu bi ñu toll waxtu bu doy waxtu bu garaaw la ndax bu ñu jëlul ay matukaay yi ñu war a jël ah nettali bi du du gën loolu tax nag ma ne bi ñu gisee feebar bi ni mu lawee rawatina si région wu Ndakaaru muy capitale bi ak région de Thiès ñoom ñaari gox yooyu boo leen boole téeméer boo jël suñu feebar ci réew mi juróom-ñeent fukki yi daanaka foofu lañ nekk kon ñaari région yooyu dinaa jël état d'urgence à partir de ëllëg boo xam dana andi ay restriction manam danañ wàññi dem bi ak dikk bi te dinañ def couvre-feu ci dëkk yooyu le muy région de Dakar région de Thiès lu ko dalee juróom-ñeenti waxtu ci guddi ba juróomi waxtu ci fajar